maa leen raw. saa foo ne kon mel na yaram bi day xasan. waa yaram bi day xasan ma génnoon. doon liggéey sant naa yàlla bu baax si li mu liggéey. di neex yàlla yàlla ma yàlla dolli. maay làmb. waaw ba ma duggee gis nga. gis naa sos daw tëgg. ñëpp a ñëw bul ni sos kese ñëpp a ñëw. maay làmb man maay làmb làmb ma bokk man. tey boo génnee fii ay ñoom Balla Gaye ak ñooñu Moussa Ndoye ngay wax Sa Thiès Boy Niang kii ay Reug Reug ay Sa Thiès ñooñu ngay wax ay Ama Baldé ay Moussa Ndoye li bu ñemewoon li dix mbër te tuddoo si Moussa Ndoye mais Moussa ñi ngi wax say combat ku ne Yékini Junior Diène Kaïré ñëpp ngi naan sa diggante Diène Kaïré si yow la si yow la taxawee non non non non loolu la ay man dama fi nekk ku ñëw rek baax na ah. waaw jërëjëf waaw ndeysaan oh dégg nga loolu dégg ay lii lan la laa ngi nii déggal kii mooy aada kii mooy aada kii mooy aada faas eh. laa ilaha illallah lii lan la laa ma ngi nii sama xel dem na ca Modou Modou Lo Balla Gaye ba sama xel dem Boy Niang Balla Gaye ba sama xel dem Balla Gaye Yékini ba laa ma ngi nii tey aada faas nee may aada Ndakaaru nee na may aada réew mi laa ilaha illallah oh xolal aada ak lamp ndeysaan yaa ngi noonu dégg noonu dégg nga bi ak Gris Bordeaux noonu Gris Bordeaux ndax day dem ca Ada Fass ndax Gris day dem ca Ada Fass ndax Gris day dem ca Ada ndeysaan mbokk ndey kay jur bu la ne foo jugee nga ne faas tigre faas a noonu mooy Gris Bordeaux ndeysaan ndeysaan lamba ngi noonu lamba ngi noonu a ñamamel daje nañ ci digg géew gi Zarko lu muy sànni noonu Ada Fass mi ngi serein ba tey Ada il est nee na ko doo ma wër nee na ko doo ma wër maa bañ ndeysaan Zarko Ada Fass da ngay waxante Ada nga koy lamba gi nii lii mooy combat lii la lamba laaj danoo sonn ci ay revanche danoo sonn ci prib dib lamba ngi nii ndeysaan ndeysaan ambiance électrique fii nga xam ne mooy arène nationale Pape Abdou Fall woote ji tey le 15 janvier di ko féliciter sama doom ja Binta Ndiaye moog Ahmed Fall Daabo ndeysaan waay waay xoolal waa Fass ña ngay fecc dafa mel ni dañ leen a dee mais Zarko mi impose Zarko mi <laughs> ay waay ay waay ay waay Ada Fass bi ma ne ko Zarko bi Yeah, yeah, yeah.